te xam naa lu ma renoncé moom xam na ma moom xam na fu ma ko teg moom xam na lu ma daj ci moom bi muy gën a metti nit ñi di ko daw moom xam na ko am Amadou xam na ko Amadou xam na bu baax xam na ne man ay intérêt ay position musuma motivé mu ma Amadou xam na ko président Macky Sall xam na ko xam na ko président Macky Sall xam na ko gis nga Maïmouna. mais est-ce que est-ce que est que c'est pas parce que vous vous sentez exclu. Hmm? vous êtes à l'étranger. exclu par qui si que Amadou Ba y un candidat qui arrive. Euh, euh, vous êtes grand communicant euh, ah. Ba xëy na boolewuñu la. Maymuna xëy na Amadou Ba woowu la am na sax foo ko waxee. Maymuna gëj ngeen waxtaan. déedéet gëj ñu joo waxtaan. kañ ngeen gëjoo waxtaan yaa Amadou avant ngay def sa charge bi. maka Amadou. avant nga koy chargé. mais moom ma fi indi kañ ngeen gëj a waxtaan. moo ma indi. nu la fi indee. moo ma indi. mais nu la fi indee. moo ma jëlee France ma ñëw. mais euh, pour lan. pour liggéey. dansa sa man man duma ma communication kese may mun a xam nga nit ñi dañu may. pré bi ngay jóge France di ñëw Amadou moo la fi indi. barke nga dem grand jury bu Babacar Fall et nga chargé Amadou Ba. xaaral xaaral may mun a il faut nga déglu ma may expliquer la euh, Amadou Amadou. ci ñun ci ñun mooy te loolu au fait loolu moo dal sama xel ci ad Amadou gën maa neex ci moom Amadou mooy suma premier défenseur billaahi tey répété na ma ko parce que vous avez reçu aujourd'hui ah dindil tukulóor bi nekk ci sa kaw chemise bi <laughs> y a un tukulóor ah. kaw chemise bi attends may mun a Amadou mooy sama premier défenseur Souleymane est un homme libre Souleymane est un homme d'esprit Amadou mooy suma plus grand défenseur looloo tax ma gën koo naw mais looloo gën a tax sunu diggante gën a dëgër. Euh, ah Amadou ah, ah, Amadou moom waa xaaral waa xaaral moo tax ma gën koo fonk Amadou xam na ma man du ma nit kuy kon am naa lu ne wax nga PUDC bii. cinq cent vingt deux milliards la man bi mark di dem élection man ak Mimi Touré la woo Mimi Touré xam na man sama liggéey ak sama xam-xam xam na li ma mën ak li ma mënul dañ may présenté comme un chroniqueur comme un ci comme un ça loolu rek. mais amul lan la la woowee pour nga lan la la sant pour nga liggéeyal. ko mais loolu may mun a du lu may wax fii les premiers documents au fait looloo ma xaw a jaaxal ci mbir mi les premiers documents de stratégie yu mu téye ci loxoom maa ko ko jox daje yi njëkk a daje avant Macky jeunes yi yi ñu ngi may dégg mën nañ koo seede avant Macky di ko désigner laa leen commencé woo di waxtaan ak ñoom di leen président Amadou lay désigner Amadou mooy doon suñu candidat jàppale leen ko jeunes yi JIR yi ñu ngi may dégg jeunes yi APR yi ñu ngi may dégg euh, donc moi. mais mais vous avez un problème de démarche Souleymane. donc waa xaaral waa xaaral vous pouvez apprécier moi moi je suis. Amadou ah, Souleymane vous avez un problème de démarche ki la jëlee pare indi la ki nga ne da ko élaborer une stratégie. ah non Amadou ki nga ne da nga ko élaborer une stratégie. je pense que boo toogee nga def la constat que am na nu mu war a yëngoo yëngoowu ko mais nga wax ko ko entre quatre murs waaw waaw Maïmouna vous n'avez pas à armer ses adversaires contre lui Maïmouna encore une fois su ma jublu woon ci armer ses adversaires wala dara nga may ma ma au moins placer <laughs> quelque su ma jublu woon ci armer ses adversaires wala dara du ma démarche ma defee noonu man xam naa su ma jógoon pour déstabiliser wala ñu ne oui Souleymane problème de lan positionnement positionnement. Mm -hmm. mais su fekkonte ne problème positionnement wala problème toog France wala léegi duma ma du ma du xaar kon duma xaar ba tey.